waaw ñu ngi toog ak grand boo xam ne mag la ci Liss mag la ci Laurent Ndiago ñu gis ko combat bi nu mu ci sonnee grand maa ngi lay nuyu di la bëggee di la siyaar. waaw maa ngi lay ziar maa ngi lay fay bu baax a baax nuyu ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm waaw. tey ñu gis sa ñaari rakk di bëre est-ce que yorandoo ñaari rakk yoo xam ne ay mbër lañ ci biir kër yomb na ak coow li. yor benn mbër rek sax dafa metti waxatuma la ñaari mbër mais dañuy sant yàlla rek comme yàlla ak ñuy may tal ak fekkee moom ci góorgóorlu rek boole ci lépp lu nga xamante ni moom lañu am si énergie kii force yàlla baax. ñu gis ngeen génn ci combat boo xam ne dafa bëri woon coow muy seen combat ak Pokola ngeen ñëwaat amaat Zos. ci combat bi tamit amaat coow ñu ne yéen a ngi bëri ak muy Zos ngeen ñëw dóor ko mu daanu lan la lan mooy seen sekke bon Pokola moom yàlla moo ñu booloon ñu bëri rek maa ngi maa ngi déglu tey tey interview muy wax lu ko neex nekk média wax po dafa ñoo xam ne ay siisumaan lañu moom siisumaan la voilà. nga nit boo dee borom xol bu rafet loolu ngay jëfee di ko waxee mais munoo wone image bi suba nga nga yor beneen image tey mu ngi wax lu ko neex ay liis mook sama benn rakk bu nekk fii ñoo doon ànd ay néeg nii bu ko seytaane jeyee ba ñu boole ñu néeg nii ñun daa am nu ñuy dool mbokk yooyu lañ siy xool donc parce que maag ay magam ak ay ay kéem ñun ñooy ànd tey si suba gii may wax ak yow la ma seex ñang woo ba paas ma faa njagam jabar ji te moom ak Cheikh Niang dañoo bokk lu ñu mooy que ni rakku Cheikh ak moom benn benn rakkam Fatima benn sëram ñoom ñoom moo ku may wax Fatima rakku Cheikh Niang la Fatima ak Cheikh Niang ñoo bokk benn yaay Pokola ak Fatima ñoo bokk benn papa As Mbaye mooy seen papa Fatima man maa ko yar ndax man Cheikh Niang moo ma am na yu bëri duma ko wax. Pape Faye mu wax demb rek la fi joge te tay tay xamna dina fi ñew mu ma mu bokal ben bàyyi nga nit beure nañ ba pare na rafet bu len di lamb di wat mu wat len mais comme liis daan bu mu dan sos lan la da cee da cee wala da ko do ko neexul. mais c'est est newul limu dan mu ba pare lis ñewaan mel lu ko romb. mom danul te munul daan liis dam lañ ko yag wax foog na aduna du neex bam dan daan liis ka dan lii man maa ko wax te du ma ci dellu ginnaaw munul daan liis te du ko mus a daan déggoo ma te du ñu du ñun ak moom fekk mu ngi yor xol bu bon boobu si ñun day arrière ñu ñuy avancé. mais bi ñu doon wax la bëgg a bëre dama ne fekk mu ngi yor xol bu bon ñun ak moom si ñun xol bi fekk mu ngi siisu si ñun day arrière ñun dañuy avancé xoolatuñ ko ñun ñoo ko raw si làmb si lépp ñun ñoo ko xool soxlawuñ ko soxlawuñ ko. Pogolan maam secret la lis feeñal loolu moko ko métti dara si làmma dafa cuub dafa cuubloo waa Pikine seen drapeau da leen rusloo luñ foogoon ak lu am mo bokul muy nek bi di beri wax di def ni mbër da ngay doon mbër mbaa nga di def yooyu noonu ba ak nek bi di bëri wax loolu du làmb làmb da ngay jëf ñuy gis nga ngay yor jikoy mbeur di def jikoy mbeur heure entraînement ñu ñu fekk la fa mais taxawaaloog yoy non dong xool ñu mujjee bëreel ñëpp a ko ëpp ni ñu badu bu laa la ëpp euh, gis nga gàqu de xoolal keroog ba lii simee ah te ñoom ñett ñëpp bëri nag ñoom ay bébé guy gi ah dañuy jaawle do fas ak ak ak ak ak ak maanaam gagneur moom du gagneur daa doow fas rek te booyee ay gagneur lañu ñu ma la limal ñii ñëpp ñoo ko mën mais da nga jàpp ne dafa amul staff. Ah, du question am moom moom siisumaan la laa la wax siisumaan la bu dul woon siisumaan staffam bu ko yoroon ñu koy dégg ba tey ñooñu nice. mais li mu wax noonu ci liis est que amul lu tax mu wax ko. déggoo ma la wax baat ak tontu la lu mu wax ñun ñun am nañ lu ñu mën a wax si moom parce que dañ kaa xam xam démbam xam teyam mais na rafet ñun bu ñuy doxal affaire mbokk ndax ay mbokkam na rafet bu ci waxee leneen tam ñun ñun tam ñu génn wax tamit day ñaaw rek mu continuer ñaaw bu xasee ñaaw mu ñaaw benn yoon ñun bëréewuñu ak moom bëréewaanuñu ak moom mais lan la xanaa daf ñoo yéenewul te pourtant ñun dañ kaa yéene dañ kaa yéene ñun buñ señoon moom nu tekki si làmb am lépp dimbali yaayam dimbali ñëpp ñu mu war a dimbali ñu waxante dëgg magam fii maa maa ko jël yóbbu ko école li Mouhamed Ali fii Bado Mbaye waaw mu ngi Thiès rakkam bu muy wax maa ko yar si kanam léegi mu woo ma wala mu ñëw fi. mais est-ce bu amee kon waruñu toog waxtaan. non du waxtaan moom moo amul conseil moom amul technique de communication boobu ba nii dañuy déglu communication mais du jaar yoon dañuy muñ muñ muñ man nag maa muñ ba mënatuma muñ dama koy wax dëgg bu ma ko waxee dëgg ay mboqam dinañ ko alerter xamal ko ni kii di wax ak moom. magam la na def attention mu xam nu muy communiquer dafa amul technique de communication dara ñun dañoo bëgg seen waa kër yi parce que Jules Baldé exemple la Ama gis nga doo ko gis si yenn doo ko dégg si yenn yi su ma la nee Ama ñëw na ba sama kër fii fekk ma fa mag buuba buuba keroog ñu ngi daje a mu jëm mais mooy loolu même signature ba sax. yal na leen yàlla may jàmm ñoom ñooñu parce que samay nit lañu quoi mais booy bi allure bu muy daw naka wàññi ay magam ñu ko si jiitu foofu dañoo xam ni ñuy taxawee xam ni ñuy doxee xam nu ñuy waxee ndax boo nekkee benn si benn milieu benn affaire ba am si tur nit ñi dégg la da ngay moytu lu bëri di xoolaat say kàddu nu ngay waxee lu ngay def lépp muy jaar yoon ndax da am ay soppe am ñu la bëgg te da nga am ay noon mais bul may tamit say noon wax. wala di leen may yenn yi waaye tamit gi nga say noole bu leen may say say say noonu ni ñu amee gàcce say noonu moo tax chaque jour wax biy génn na nga ko xoolaat mooy loolu. ah génn ngeen ci Zos fan ngeen jëm coow li bari. non ainsi moom ah. ñu ngi toog di déglu rek ku ñu làmb booleel ñu fay ñu lu ko jar dinañ bëre waaye tamit. làmb bu ñu mëntu wax te fay ñu ñu lu làmb bi njëg bi di jar ñu toog xaar rek. instant bi moom yéen suwa. ainsi amuñu benn contrat. dañoo libre waaye dañoo nekk si komba nii tamit combat Laurent boo gisee suñu victoire bi mënuñu ko feetee komba boobu moo ñu bu ñu ñaari ba pare ñu doogay jublu si leneen wax si leneen voilà. bëgg naa ci yow looy wax waa jàmm gën ak ñi lay jaama gën mënuma lu dul di leen sant ndax ñun amuñu lu gën jaama gën amuñu lu dul jaama gën lépp luñ doon ak lépp luñ mel jaama gën a tax tey jii booy mënuñoo fay waa jaama gën daal te man dara ñoruma lu dul jaama gën jaama gën rek a ma ñor dugal kër par kër mbër par mbër ñu ñu bokkal écurie ak ñu ñu bokkul loolu nga dugg kër par kër mbër par mbër wax leen si man nga xool luñ lay wax aw ma kenn xaar ma yàlla. te ku ci xewle ma maag yow ba boobu ñun jàmm gën rek ñu ñor yàlla na fi jàmm ok